SeneInfo International euh, SeneInfo International SeneInfo point net euh, dalee nag jàmm si lu gën a fees si xibaar yi euh, tey vendredi 29 décembre 2023 waaw le quotidien rek lañ koy commencé moom nee na le prix à payer plus de 314 000 personnes ont besoin d' assistance alimentaire immédiate donc loolu journal bi xamle nee na impact de la hausse des denrées des ménages journal bi loolu la def tey à sa une ñëwaat encore rek si euh, euh, militaires yi nga xamante ne tey euh, rey nañ leen keroog fale si Casamance li nga xamante ne mine moo leen rey ne quatre militaires tués par mine en Casamance mu ñëwaat ci ne huit personnes arrêtées donc si rey boobu nga xamante ne mine bi rey nañ ko militaires yi ñu ne lu toll si huit personnes arrêté nañ leen journal bi xëy xamal ko des rek ci journal bi mu ne bénédiction des couples homosexuels donc euh, l'église du Sénégal di non au pape donc euh, suite aux propos yi par exemple pape euh, France pape euh, François yëkkati woon na ko euh, donc donc suite aux propos yi nga xam ne pape bi yëkkati woon na ko temps yee passé ci affaire homosexuel bi di ne mën nañu autoriser homosexualité bi donc église bi position mooy nee na moom nee na ni na nee na déedéet. Euh, loolu la waral journal bi def na ko dans sa mu ne l'église du Sénégal di non au pape. le soleil moom dafa ñëw aussi euh, nee na la SAR la société africaine de raffinage nee na la SAR monte en puissance euh, capacité de raffinage mu ne elle est passée de 1,2 à 1,5 million de tonnes de pétrole brut par an objectif atteindre 3,5 à 5,5 millions de tonnes par an entre 2025 mille 2035 donc loolu mooy objectifu euh, société boobu nga xam moom mooy société africaine de raffinage muy SAR mu ne triplement des capacités de production de la Sénélec donc loolu la loolu la journal bi xëy euh, xamle euh, tey à saa une ñu desal si journal bi nga xam ne yëkkati na propos yi nga xamante ne moom yëkkati woon na ko te nga xamante ne moom mooy évêque de Dakar nee na les évêques Sénégal la ñuy wax nee na net donc journal bi aussi ñëwaat na si loolu ñëwaat aussi si Ndella Madior Diop bi nga xamante ne moom tey jii moom defeere nañ ko moom ak ay ay jegeñaaleem surtout ñi nga xamante ne xale góor yi nga xamante ne moom la doon bokkal liggéey bi ñoom dañ leen defeere ñu des rek si benn euh, beneen astuce beneen beneen fànn si euh, le journal euh, Le Soleil mu ne café citronné en cocktail aux effets bénéfiques donc ñu jàpp ne café ak limon dafa baax si wér bu doomu aadama donc journal bi ñëw euh, def ci gëstu bu yaatu yaatu di ñu ko xamante euh, dans sa une. réew mi moom la ñuy ñëw rek réew mi moom nee na transparence du scrutin du scrutin présidentiel mu ne le serment de Sidiki Kaba donc ki nga mooy euh, ministre de l' intérieur mooy Sidiki Kaba moom nee na toutes les dispositions seront prises pour que la présidentielle se déroule dans d'excellentes conditions donc je serai à l'écoute de porteur d'initiative pour une paix hein, euh, durable donc loolu la Sidiki Kaba xamle euh, ci journal mi ñu des ci journal Rewmi ba tey rek mu ne euh, rétrospective économique 2023 mu ne une pluie de milliards et des accords de financement donc loolu la journal bi xëy xamal tey à sa une voilà. donc euh, ñu ñu ñëw si Vox Populi Vox Populi moom dafa gën a fësal rek dans sa chaîne mooy promesse yi nga xamante ne Sidiki Kaba def na ko ah, mu ne les promesses de Sidiki Kaba et de donc Sidiki daal mu ngi ne dafay organiser élection yoo xamante ne dafay am jàmm am salaam euh, voilà scrutin boo xamante ne du am benn jiixi jaaxa loolu la Sidiki Kaba fas yéene loolu la xamal donc journal bi dëkk bi ñu ko xamal à sa une ñu ñuy des rek si journal bi mu ñëw si. Euh, pourvoi en cassation introduit par l'État mu ne les avocats de Sonko interpellent euh, la responsabilité des sept euh, sage donc loolu la journal bi def à sa une ñu defee ci journal les effets du Sénégal réitèrent leur opposition à l'homosexualité donc par la voix de maître maître monseigneur par la voix de monseigneur Benjamin Ndiaye archevêque métropolitain de Dakar il réaffirme leur position hostile à l'homosexualité donc euh, ñu jeexale rek si Ndelema Dior Diop bi nga xamante ne moom euh, ni ngi démb lañ ko euh, def mandat de dépôt mu ngi si prison ba même bien vrai que son bien vrai que son dossier est en instruction donc loolu la journal bi xëy tey xamal. xamante asa yu nag Sud Quotidien moom dafa ñëw rek def benn rétrospective en de l'année 2023 mu ne affaire politico-judiciaire manifestation meurtrière de juin liberté civile et politique en péril jeu électoral euh, tronqué 2023 de tous les excès donc euh, moom dafa ñëwaat rek si li nga xamante ne jot na xew si 2023 bi euh, mu ne encore en même temps aussi ñu ñu des rek si journal bi mu ne Jean Charles Biagui, ah, enseignant-chercheur en sciences politiques en cette fin de l'image, en cette fin de l'année, l'image de la démocratie sénégalaise est peu reluisante. Donc loolu la journal bi xamle donc euh, ñu des rek si journal bi mu ne démarrage des saison des pluies les Niayes en souffrance donc euh, voilà ñu ñu ñu ñu loolu la journal bi xam ne ñu jëm si beneen journal ñu Walf Quotidien moom dafa ne rek recours au parrainage parlementaire mu ne volte face euh, des cadors lool la titré donc liste des sélection sélectionnés aussi pour la CAN ce vendredi donc ki nga xamante ne moom mooy euh, Aliou Cissé donc na déjà liste bi nga xam ne moom mooy joueurs yi wala participer à la CAN à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire donc loolu la journal bi ñëw fësal tey euh, dans sa une mu ne euh, fraude fraude de l'assurance automobile aussi les pertes estimées à plus d'un milliard de francs CFA église bi ba tey rek mu ngi ñëwaat ak ñaaxaat am ah, ne moom d'accord ci li nga xamante ne Pape propos yi nga xam ne Pape tënëral Pape bi tënëral na ko ci homosexualité mu ne bénédiction des couples homosexuels l'église sénégalaise réaffirme sa position donc ki nga xamante ne moom église sénégalaise moom d'accord ci li nga xamante ne moom la Pape propos yooyu nga xamante ne Pape bi tënëral na ko euh, mu def ko tey euh, dans la une de Walf Quotidien l'observateur moom dafa ne accident dans un cyclo le bilan est passé de 40 à 70 morts les traumas des secouristes les souffrances des rescapés et le groupe WhatsApp donc dafa ñëwaat rek defaat benn gëstu bu yaatu si accident bi nga xam ne amoon na si kilo donc euh, mu ñëw di ñu ko fesal mu ne rek la mafia des faux documents éventrés les cachets de 58 centres d'état civil entre les des faussaires donc euh, sécurité urbaine mu ne 90 euh, copies littérales 23 casiers judiciaires 4 64 certificats de mariage entre autres donc loolu la journal bi ñëw defal ñu tey gëstu bu yaatu ñëwaat encore rek si Coupe d'Afrique des Nations mu ne 9 milliards de francs CFA pour gagner la CAN le budget euh, initial était prévu à 6 000 milliards mais l'État veut éviter tout manquement donc nga xamante ne état moom du Sénégal jël na ay matukaayam pour vraiment coupe bi euh, pour que euh, Coupe d'Afrique bi jaar jaar jaar si yoon donc ñu nekk dans de bonnes conditions loolu moo waral mu yokk budget bi ba 9 milliards au lieu de 6 milliards bi nga xamante ne mën na doon nekk. donc euh, journal bi nag ngi jeexalee si kii bi interview bi nga xam te ne amal na ko euh, Bijou Ngoné mu ne interview explosive de Bijou Ngoné mu ne je ne suis de personne de la malchance dans le la vérité sur le marché de la ville de Dakar donc ki nga xam ne moom mooy Bijou Ngoné nekk animatrice la 2 moom def na euh, interview bu yaatu yaatu ak waa l'Observateur di revenir li moom mooy vie ak vie am journal bi ñëw nañu ko xamante saa une. donc lii lañ leen indiloon tey ci euh, seen euh, revue des titres lu gën a fës ci xibaar yi tey euh, vendredi 29 décembre 2023 ñu ne di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi te di leen ñaanal jëndal jàmm. Sene Info International.